dëkk bu sell bii di Touba ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xadim moo ko sanc ci atum 1888 ca weer wa nag di weeru tamxarit ginnaaw bu mu sancee dëkk bu sell bii nag di Touba ci at moomu nag di atum 1888 dëkk bu sell bii nag di Touba ku baax ki Sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag bindoon na ci nag ak xasida di ci ñaan nag bëgg-bëgg yim soxla nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ndox itam nag bokkoon na nag ci ñaan yim doon ñaan nag ci xasida googu nag tudd Matlabul Fawzayni mu cay ñaan nag lii di ndox ak ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo dëkk nag ci dëkk bu sell bii aw mar nag bañ leen a sonal soo delloo nag ci xasida bii nag di Matlabul Fawzeyni sëriñ tubaa seexul xaddiim ci juróom-ñaar fukkeelu way ak ñaar muy 72e bayit ba ma ngi cay ñaan nag am ndox ngir nag dëkk bu sell bii nag di tuubaa man koo am soo delloo nag ca way wa sëriñ tubaa seexul xaddiim nag mi ngi ñaan buur bi ka wa taala sama dëkk bu selli bii nag ma musal nag ci ay kàccoor ak képp koo xam ne ni nag day def ñaaw téef nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ba muy daaneel way wa nag ma ngay ñaan nag suñ boroom mu defal ko nag dëkk bu sell bii nag di tuubaa mu am ndox moo xam ne nii nag xam ne nii daal day daw ci dëkk bi comme dex ñu teewlu nag ñaan gi seexul xaddiim doon ñaan nag ci Matlabul Fawzayni te juróom-ñaar fukkeelu way ba ak ñaar di 72e bayit ba fam doon ñaan nag suñ borom musal ko di Tuubaa ak nag mu may ko ndox moo xam ne ni nag day daw comme dex ci dëkk bu sell bi ñu teewlu ko maskani sallim min al fujjaari wa mun xalal ahli bi maa in jaari ginnaaw ñaan gu am solo googu nag seexul xaddiim doon ñaan nag ci xasida gi nag di Matlabul Fawzayni muy ñaan itam ndox ndox itam nag bokk nag ci ponk yi nga xam ne nii nag nit mënu koo ñàkk ngir jaamu suñu boroom tax na nag mag ñi àndoon ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul xamoon nañ ko lool seexul xaddim itam xamoon na ko ginnaaw bu ñu sancee dëkk bi nag ba noppi ñaan googu seexul xaddim ñaanoon nag ci la Matlabul Fawzayni jàpp ndéegul loolu itam nag taxoon na nag mag ñi nag daa sol seenu dàll nag ak fu ñu mën a amee jëm ndox nag yit ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñoom itam nag ñu nekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci dëkk bi itam saa bu ñu maree itam man caa jëfandiku tax na fu ñu déggoon ndox itam daa fa dem nag di ko wuti ji ñu man cee ràññee nag dëkk bii nag di ngaabu man cee ràññee itam nag dëkk bii nag di mbàkke bawal man cee ràññee itam nag dëkk bii nag di kayeel ñetti dëkk yi nag bokkoon nañ ci dëkk yi nga xam ne nii nag mag ñi nag daanañ ci jaabante saa su ne di wuti ndox nag jébbal ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bu nawet jotee déeg yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk itam ñu ciy tànqum ndox nag di ci naan boole kook itam nag siyaan yi amoon nag te wër nag dëkk bu sell bii nag baax ki sëriñ Touba xaadim rasool doon a am ndox nag dëkk bu sell bi nag di Touba mooy roote ji ngaabu roote ji kayal roote ji mbàkke bawal di root ci déeg yi ak seyaan yi seexul xadim nag wéy nag nekk nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ab diir bu néew itam nag la fi def gas lu fi nag ab teen bu mu tudde nag ay nu raxmati teen boobu nag bi ko sëriñ Touba xaadim rasool nag di gasloo mag ñi wax nañ ne itam nag ndoxum sam-sam nag la sotti nag ci bërëb bi nga xam ne nii fi lañ war a gase teen bi daat fay ñaan waxoon mag ñi itam nag ñuy ay ay doyloo nag lii di gas bi ak mbooloo mi nekkoon ci seen ginnaaw mag ñi itam nag gas nañ ko nag ab diir nag bu xaw a yàgg nag teen bi doog a bënn suñ boroom nag mi ngi dogalee nag teen bi bënn nag ci ayuk sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ bokk itam nag ci mag ñi toppoon ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw nag bu teen bi bënnee ci ayuk sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ mu tànq ca ndox ma it ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Seexul Xaadim nag naan ca ndox ma ñaan ca ndox ma sottiwaat ko nag ca teen bindoon na nag ak nag suñ boroom buur bi nag mu doon ñaan ci dëkk bi nag muy nag teen bu bënn di a am nag ci dëkk bu sell bi Seexul Xadim nag mi ngi tënke xasida gi alhamdulillahi wahdahu mu toll nag ci fukki baat ak ñett fukki baat ak ñett yooyu nag baat bu ne nag aw way nag la ko Seexul Xadim def di sant nag suñ boroom nag ci ndox mi mu ko tàmbalee may nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ginnaaw bu mu santee suñ boroom julli ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi ni mu ko baaxoo di def nag ci bépp xasida boo xam ne bind na ko moom Seexul Xadim di wax nag suñ boroom yaa ko moom wattu nga ñu nag ci ay noon wattu nga ñuy tim nag ci ay lor wattu nga ñuy tim ci ay dóor muy wax lu amul yow nag suñ borom musal ma nag may nga ma nag ak mucc ba lii ak tiis wala aw lor itim nag du ma jege yow suñ borom nag indil nga ma ay mbégte te doo ma indil nag bennum noon bu may lor yow suñ borom nag yaa moom bindee fi te lépp luñ baax le nag jox nga ma ko lépp nag luñ bon le na sori le nga ma ko yaa moom àdduna nag yaa moom alaxira te nekkal nga ma te dencal nga ma yiw woo xam ne nii na xaw ma nu mu toll yow suñ borom nag indil nga ma mbégte yoo xam ne nii nag du nëbb ba mukk yow mi nga xam ne nii nag la gën a nëbb nag ci say may may nga ma ko yow suñu borom nag jubal nga ma jubal goo xam ne nii nag du ma réeraan mukk ginnaaw bi te lépp luy réerale nag du man ci man dara yow suñu borom nag dëkk loo nga ma tuubaa moo tax itam fegal nga ma bépp ay wala bépp lor boo xam ne nii nag mën naa lor doomu aadama maa ngi lay ñaan nag lépp luy wéradi nag nga musal ma ci nga aar ko itim nag ci dëkk bii te tuubaa gii la di itim nag surgab sab jaam man miy jaam nag buy liggéeyal xam ne nii lu ma bëgg la lu yaatoo yaatoo yaatu daal la seexul xadim nag di wax ci fukki bayit ak ñett yi mu tënkee nag xasida gi di ci ñaan suñ boroom ci xéewal gi mu ko defal nag ci ndox mi njëkk am nag ci tuubaa ginnaaw nag bu ko mag ñi bënnalee ab teen ñu teewlu xasida gi alhamdulilahi aljazili niamati ala xuruji maa i ayni rahmati lil mustafa rumtu salatan ma salaam bil ali wa sahbi min allahi salaam xafistana yaman lahu kulliyati min al aadi wal aza wal firyati manamta bil ifmati min kulli darar wa bin najaati min balaa wa garar duaa yastajabta bil masarra bila muaadatin wala madarra lakal wara wali yaxutta xayrahum wa di siwa naxwiya suxta dayrahum lakatihi dunya wa tilka al oxra wa kunta lii waliya sunta suxra ajabtani bi basharin la taxfa alayka yaa man juttali bil axfa hadaytani hidayatan lastu adil min baadiha lam yanxuni dahra mudil watramtani yaa xaafisi fii tuuba faltakfiha shurura walxutuba futha an il wabaayi wal afaati daara ibadatin bila iltifaati daaka abduka xadimu abdika murtajiyan nayral muna min indika habli xadimi abdika almushafai muradahu bihi ayaalahu nfaai wa hablahu fi kulli harfin minha hamdan wa shukran yurdika abadan wa idxil surura alayhi amin ya rabbal wa taala di ko ci sant nag ci xéewal yim ko defal nag ci ndox mi mu doon sàkku nag ci dëkk bu sell na gëneen xasida nag di ci santaat bu baax a baax nag suñu borom di ko na xéewal ak ndox ci xasida googu nag seexul xadim nag ko tënkee arafi alxuraan yii nag nekk itim nag ci sóoratul xamar tudd nag wa fajar naa ardaahu yunan ci aaya alxuraan yooyu nag la seexul xadim nag tënke xasida gi aaya boobu nag suñu borom nag ma ngi ci doon wax nag wàllum ndox ci aaya boobu delloo nag ci biir xasida gi seexul xadim nag mi ngi ko tënkee nag ci fukki way ak juróom-ñaar ginnaaw bu mu ko ubbee nag ni mu ko baaxoo daa ubbee nag ci bépp xasida goo xam ne nag moom la bind moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim noonu itam nag ni la ubbee nag xasida gi muy sant nag suñ boroom julli nag ci yónneentam ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ak i sahabaam ma ngay woo nag suñ boroom ci tur wii nag di raxmaan ndax raxmaan kan mooy ma nag ay nu raxma di bëtum ndox boole ci itim nag sa yërmande boole nga ci itim nag nag yow mi ji not ji yow mi nga xam ne nii nag yaa yilif géej ji yilif itam dex yi may nga ñu am ndox nag may nga ñu itam nag wërsëg yow mi nga xam ne nag yow yaay ngën ngi kiy joxe ngën ngi kiy jariñe ginnaaw bi ñu mayee ndox mi ba pare nag nag ñu gërëm ñu itam nag nañ la gërëm bu ñuy deñ mukk nag suñuy xéewal nag di yokku yow suñu borom yow mi moom sareha nag indil nga ñu wërsëg woo xam ne nii wërsëg la nag wu ànd ak ngërëm yow suñu borom nag yaay ki am kàttan te am kàttan nag moo gën a yey nag ngir dimbalee yow suñ borom yow mi yërëme te kuy yërëme nag foo ko fekk nag moo gën a yey ci gépp sant nag sant nag ñu sant ko ni yaa moom mbindee fi suñ borom nag yaa ma wommatal ngërëm tekki nag ay bernde yaa moom ndox mi itam nag yaa moom mbindee fi la ñuy ba mën a nekk nag ci kaw suufa yow suñ borom nag may nga ñu ngën gi ndox ndox moo xam ne itam dana màndal na képp ku ko naan te itam nag dana ko may ngën gi texee yow suñ borom nag may ñu ak texee fegal ñi itam lor na nga sellal itam nag sama dund ndox mii nag képp koo xam ne nii naan na ci xolam nag na ko boole nag ci xolam ñiy texee ku naan ci mi itam na nga raxas ab xolam ci bépp ayib na nga def itam ab xolam nag mu nekk caabi kumpa yi woona suñ borom itam juróomi yoon ci wooye suñ borom juróomi yoon ci xasida gi nag ma ngi koy wax ne nag nag màndal nag ñu màndal fegal nga ñu ayu mbooleem bindee fii lépp loo xam ne nii nag aw yoo ngi ci baye boo nga may ñu ko xasida gu yaatoo yaatu daal la seexul xadim bind di ci santaat suñu borom ci ndox mi ko may nag ba mu gis ko ba nit ñi tàmbali koo jëfandiku xasida gi nag seexul xadim mi ngi ko tënke ci fukki way ak juróom ñaar jëlee ko itam nag ci benn aaya alxuraan boo xam ne nii nag suñ borom tabaraka wa taala mi ngi ciy wax nag ndox ci aaya yooyu itam la seexul xadim sukkandiku bindu xasida di ca sant suñ borom ñu teewlu nag ñaareelu xasida nag gu seexul xadim bind ginnaaw nag bu mu gisee ndox ci dëkk bu sell bii nag di Touba tem nekk loo xam ne itam nag doon na ko ñaan suñ boroom nag ngir mu defal ko ko ñu teew lu teewlu xasida gi wajaba hamdullahi wasalaatu ala allazi tafi bihi silaatu qad jarta ya rahmanu ayna rahma maa salaamatin wa xayri nicma ji'naaka ya karimu ya qahaaru ya man lahu lbuhuuru wal anhaaru jittalana bilmaa'i wal arzaaqi ya xayra mu'tin naafi'in razzaaqi radita anna wa radina anka wala nasalu fi ziyadin minka نفعتنا بما لنا الشريعة قاد برزق لردى زريعة أنت القوي والقوي أولى بأن يكون الناصر ومولى أنت الرحيم والرحيم أقمن بشكر شاكر أتاه الأمن لك المياه ولك البرايا يا قائدا لي بالردى قرايا asqaytanaa xayra miyaahin yartawi shaaribuha wa xayra fawsin yaxtawi rabbik fina shaqawatan wa dayra xabla intihaain wal tusaffil mayra dumma fuaada shaaribin minha ila afidati allazina faasu bil ila عن القلوب اغسل بها كل عيوب وعندك اجعلها مفاتيح الغيوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سقيتنا يا ربنا وقيتنا شر البرايا طرا قلت لنا في كل شيء برا نحن العيال والعيال أدر بأن يخصص بخير يندر أدم سلاميك بلا نهاية لمن حوى الفضل بغير غاية وتقبلها من قائدها بقبول حسن bila afatin wala tabirin wala baynahu wa bayna ahadin amin ya rabbal alamin ginnaaw ñaari xasida yu am solo yooyu nag seexul xadiim nag bindoon ci ndox moomu nag mu doon sàkku nag ci suñ boroom ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa suñu boroom nag may ko xéewalug nag mu bënnub teenam teen bi itim nag am ndox nag mu neex a neex mag ñi itim nag wéy nañu itim nag di sàkkum ndox nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ndax teen bi nag ñu tudde ay nu raxmati li muy joxe cim ndox itam munta màndal mag ñi fi nekkoon ak seexul xadiim loolu itim nag tax na nag mag ñi nag daanañ wéy nag di rooti ji kayel daanañ wéy tim nag di rooti ji ngaabu daanañ wéy tim nag di rooti ji mbàkke bawal daanañ wéy nag di taataanum ndoxitim ci bu yàlla siy taw déeg yi nga xam ne itim moom la suñ boroom amal tam nekk nag ay déeg itim nag yu wër dëkk bu seel bii nag di tuubaa itim daanañ ci rooti ji lii di siyaani itim nag daanañ ci roote ji ba ni tuubaa nag amee nag luñ tudde nag ñaareelu teenam mooy aynu rida aynu rida nag mi ngi ci quartier bii nag di daarul xuddoosa ñaari teen yooyu nag la fi ku baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasool nag bàyyi nag dem ci géej gi ci atum 18 1995 ci atum 1902 ba nag la ñibbisi nag ci réew mi ci atum 1903 nag lañ ko fi jëlee nag yóbbu ko gànnaar 1907 nag lañ ko yóbbu ca yéen jolof ci atum 1912 nag lañ yóbbu njaareem ci atum 1913 ba nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dajale woon na nag lenn nag ci ak njabootam wax nag ñu ñëw toogal ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ca mbooloo moom nag ñu mënoon ca ràññee Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Massamba Mbacke sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Mor Roqaya Buso ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ca mbooloo ma ginnaaw bu ñu ñëwee nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba Touba itam nag mi ngi wéy nag di am jafe-jafey ndox ndax kat booba kat ñaari teen dong nag ñoom ñoo fi am te ñaari teen yooyu nag taxul woon nag ñu mën a màndal nag dëkk bi loolu itam nag taxoon na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke solaatoonu dàllam ñëwaatoon nag njaareem ci ki ko yebaloon nag Touba nag di waajuram di xaadim rasul di ko wax ne kat Touba nag ña nga fa waaye nag lii nag manqué na lool loolu itam nag sell boobu nag di Touba ba tax itam ñu man fa am ndox nag mu ñu mën a jaamoo suñu boroom keroog Seexul Xadim mi ngi xamal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko wax ne ndox mi di mi ngi nii may janool waaye nag damay bañ rek ndox mi jiitu ma nag Touba ndax ndox mi su ma jiitoo Touba sàmm yi danañ ko yàq loolu nag moom moo tax nag bënn nëga ni nag dëkk bu sell boobu nag di Touba amagul ndox waaye nag mën ngeen a def nag ay pexe ba nu ngeen ameem ndox loolu moom moo waral nag bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke jóge waatee njaareem delsiwaat nag ci dëkk bu sell bii nag santoon nag mag ñi fi nekkoon nag ñu bënn nag ab teen ngir nag murit yi nekk nag dëkk bu sell bii nag di Tuubaa mën a am nag ndox mu ñu jaamoo suñu boroom teen bi ñu bënnaatoon nag mooy teen bi ñu tuddee ngàtte ngàtte nag mi ngi ci marché Ocass ci atum 1914 nag lañ ko fi bënnoon teen boobu itam daanañ ko wooyee jàjj mbakke waaye teen boobu nag bariwul woon am ndox ba tax na itam nag mu dul mustafaa Mbàkke jëloon na nag lenn nag ci taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon nag wax leen nag ñuy rootal nag lenn nag ci mag ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba Touba nag wéyi nag di am ay jafe-jafey ndox ba tax na itam nag bën naan nañ fi nag yeneen teen ginnaaw ay nu raxmati di teen bu njëkk ay nu riddaa di ñaareelu teen bi ngatte ñu gën koo xam ti jajj mbàkke nekk ci marché Ocass di ñetteelu teen bi ci atu 1914 ñeenteelu teen bi nag mooy ngudde mooy bi nekkoon ci fii sëriñ Touba Cheikh Abdoulahad Mbàkke dëkkee ndax kat booba kër ka sëriñ Touba Cheikh Abdoulahad Mbàkke nekku fi woon ab réservé la woon wala pàkk la woon boo xam ne ni kenn dëkku fi ab teen nag mi ngi fi woon buñ tuddee ngudde am na teen itam bu nekkoon ci biir kër gu mag gi kër sëriñ Touba Seexul Xaddiim gi ñu koy wax nag jajj faal teen bi nag ba nëga ni sax mi ngi ci kër gu mag gi moo tolloog nag fi ñuy amale cérémonie officielle lu màggaluk Touba gi juróom-benneelu teen bi mooy teen bi nekkaatoon nag ci kër mag moom teen boobu tim nag wax nañ na bi fi alaaji baara dëkkee la ko sakkoon juróom-ñaareelu teen bi mooy teen bi nekk nag ci buntu barabu sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke nu sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci biir jumaa ji juróom-ñetteelu teen bi mooy teen bi nekk nag ci buntu armeer yi juróom-ñeenteelu teen bi mooy teen bi nekk nag ci ginnaaw kër sëriñ Afi remercier ñang bi nekk ci kër xaya xaya yi wala kër ñu sant xaya fukkeelu teen bi mooy teen bi ñu tudde woon sëriñ moor mbay siisee nekk itam ci wetu puuru moor lëy bi ci yoonu gede wi fukkeelu teen bi ak benn mooy teen bi ñu tudde woon përi saak moo nekk ci daaru xuddoos mooy fi ñaari tëli yi dajaloo ci wetu station daaru xuddoos bi fukkeelu teen bi ak ñaar mooy bi nekkoon nag kër wele ci wetu kër moor boo jéey dend ak itam kër siidi kare fukkeelu teen bi ak ñett mooy teen bi safari moo nekkoon nag ci kër sëriñ sang jaañ fukkeelu bi ak bi nekkoon nag ci gaar bu mag te Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké itam ba noon ko ñu koy wax pitti semaine teen bi itam nag am na histoire bu yaatu ndax wax nañ ne sëriñ Mouhamadou Fadiama Niang keroog bi mu rootee Mbacké Bawal doon ko indil ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi mu tolloog teen bi la yëg ne jot na ngërëmam ndox mam yan woon nag foofu la tuuroo bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké toogee xalifa général des Mourides la bënn nag ca bërëb booba ab teen bii sax ba nag ni njabootuk sëriñ Mouhamadou Fadiama Niang ñoo yore responsabilité bi kon fukki teen dëkk bu sell bii nag di Touba ci ñaan gi mu ñaanoon ci la Matlabul Fawzeyni ngir nag ndox nag am fii waaye nag fukki teen ak ñeent yi taxul woon itam nag li tuubaa soxla woon ci wàllum ndox mu man koo am ndax teen yi kat yu ci baree baree bari nag wërsëgum ndox nag amuñu ko woon ndax teen yi itam daanañ toog diggante boo xam ne ni duñu amum ndox wala nit ñi itam nag daanañ dem ci teen yi nag di xaar nag ndox mi génn taxoon na nag mag ñi itam wéy nag di def ay pexe ngir dëkk bu sell bii nag am ndox nag di rooti nag ci dëkk yi wër Touba ba tey moo xam Mbàkke Bawal ngaabu ba ci kayal ak dëkkum maam moor jaare bii nag de misra boole koo itam nag bu nawet jotee ñu topp déegi nag di ci rooti ngir nag mën a denc nag ndox mi nag ngir man cee suturawu loolu itam sax nañ ci ba ci atum ba ni sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ñibbisee nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa jafe-jafe ndox yooyu itam moom moo wéy nag di am nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ba ci atum 1932 bi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag di fondement jumaay Tuubaa ji ndox itam nag ci déegi ak itim nag dëkk yi nga xam ne nii wër nañ Tuubaa nag te tàmbalee amum ndox kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom itam jàppale woon na Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke dëkk bu sell bii nag mën a am ndox ba tax na itim nag indi woon na fi ay setternay weñ ngir itim nag bu nawet jotee nag ñu man caa rooti nag denc ci nag am ndox ñu mën cee liggéey jumaa yi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul setternay ndox yooyu itam nit ndox yooyu itam moom moo wéy ba ci atu 1948 Tuubaa Touba nag am forage am bu njëkk ginnaaw bu forage bi ñëwee nag lenn itam nag ci jafe-jafem ndox mi nag tàmbali naa wàññeeku ci atum 1970 wala ci atum 1972 Touba nag am na ñaareelu forage am ci ndigalul nag ñetteelu xalifa xaadim rasul bi fi nekkoon di Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké forage boobu nag ginnaaw bu ñu ko tabaxee ba noppi nag Touba nag mi ngi tàmbalee am nag am ndox ci xalaatu nguur gi fi nekkoon ak kii di Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké fexe woon na itam nag ba forage boobu nag ànd ak liñ tudda ay bassin ci yu mag yi mbooleem pénc yi nekkoon ci dëkk bu sell bii nag di Touba ak buntu kër sëriñ su mag si buntu kër bu ne nag defoon nañ fa nag ab bassin nag pénc bu ne itam nag defoon nañ fa ab bassin ndax itam nag ñaari forage yi nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa nit ñi nag tàyyee dem foofa nag di fa rooti ji pénc yi leen gën a jege nag ndox ma nag di fa ñëw xalaat boobu itam nag la ñu defoon nag ci atum 1972 murit yi nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba mën am nag ndox mu ñu naan nag duñu dox nag ba sonn loolu moo ci dëkk bu sell bii nag di Touba na yoo xam ne ni ñi ngi wuyoo ci turu base yi ñu man cee ràññee base Cheikh Mourtada Mbàkke ci yoonu daaru moxti wi ba nëga ni nag ci base yooyu am na ci buntu kër mag ñoo xam ne nii ba nëga ni seeni base tojoguñ ko Tuubaa nag tàmbalee amum ndox nag mu doy ñu sukkandiku nag ci ñaan gi Seexul Xadiim ñaanoon nag ci mat la bul Matlabul Fawzayni sukkandiku itam nag ci wax ji Seexul Xadiim nag waxoon nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke di ko wax ne nag dëkk bu sell boobu nag di Tuubaa ndox moom dana fa am waaye nag damay bañ rek ndox ma jiitu ma fa ndox ma su ma fa jiitoo lii di sàmm yi nag danañ ko yàq ginnaaw bu seexul xaddim ñëwee Touba nag ci atum 1927 Touba nag am na forage bu njëkk ci atum 1948 ba jamono jii nag ñuy waxe yéen nag Touba mi ngi ci ñaar fukki forage ak juróom forage yi itam nag nii la tëddee ginnaaw forage bi ñu tabaxoon ci daaru mannaan ci atum 1948 muy forage am bu njëkk ñaareelu forage nag bu am Touba mooy forage bii ñu tuddee forage u Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk itam nag ci yoonu belal wi danañ leen limal ñaar fukki forage yi ak juróom ak forage bu ne nag fan la nekkee nag ci dëkk bi ak man at nag lañ ko fi def ñaar fukki forage yi ak juróom nag nii la tëddee forage bu njëkk bi mooy F1 ñu gën koo xam ci forage yu Baylaat Biche ci atum 2011 nag lañ ko liggéey ñaareelu forage bi mooy F1 ba tey Baylaat ci atum 1970 nag lañ ko liggéey ñaari forage yooyu nag ñu tudd Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké teñ nekk tim nag ci benn bërëb mooy forage F1 1970 ak beneen forage itam buñ tuddee F1 2011 benn bërëb boobu nag ñaari forage itam nag ñoo fa nekk ñaari forage yépp itam nag F1 lañ leen di wooyee Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké itam nag lañ leen tuddee ñetteelu forage mooy f ñu gën koo xam ci Guédé Biche ci atum 2010 lañ ko liggéey ñeenteelu forage bi mooy f ñu gën koo xam ci forage yu Ndaamaatu ci atum 1979 lañ ko liggéey juróomeelu forage bi mooy bi ñu tuddee F4 ñu gën koo xam ci Touba Kër Ñang ci atum 1979 lañ ko liggéey juróom benneelu forage bi mooy f ñu gën koo xam ci forage yu xayra ci atu 1979 lañ ko liggéey juróom-ñaareelu forage bi mooy bi ñu tudde F6 ñu gën koo xam ci saam ci atum 2010 nag lañ ko liggéey saam nag njëkkoon naa am ci 2010 juróom-ñetteelu forage bi mooy F7 di ko liggéey nag ci atum 1996 juróom-ñeenteelu forage bi mooy F8 nekk nag ci yoonu daaru moxti bi ñu ngi ko liggéey ci atum 2002 fukkeelu forage bi mooy F9 fa nekk nag ci dëkk bi nag di daaru xaddim ci yoonu Touba belal wi ci atu 1987 lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak benn mooy F10 di forage Touba guy mbind ci atum 2002 nag lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak ñaar mooy f moo nekk nag ci université baylaat bi ci atum 2002 lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak ñett mooy F12 moo nekk nag ndaam daaru mannaan ci atum 1998 lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak ñeent mooy f muy forage yu njuga Kébé ci atum 1998 nag lañ ko liggéey forage bu njëkk a Kébé bii nag ci forage yi njëkk nag Touba nag la bokk waaye forage bu njëkk ba nag dafa dëyoon ñu bënnaat fa baneen forage forage bi ñu ci bënnaatoon nag mooy F13 Kébé ci atum 1998 lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak juróom mooy F14 mooy forage bi nekk nag ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni ci atum 2002 lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak juróom benn mooy F15 mooy bi nekk Al Azhar ci atum 2005 nag lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak juróom juróom-ñaar mooy F16 mooy nekk nag ngaabu ci atum 2006 nag lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak juróom-ñett mooy F17 moo nekk nag ci dëkk bii nag di tundoo di ci atum 2007 nag lañ ko liggéey fukkeelu forage bi ak juróom-ñeent mooy F18 moo nekk nag ci yoonu njurul wi ci atum 2008 nag lañ ko liggéey ñaar fukkeelu lu forage bi mooy F19 moo nekk nag ci quartier bii nag di Arafa ci atum 2008 2009 nag lañ ko liggéey ñaar fukkeelu forage bi nag ak benn mooy forage yu Aynu Rahmati ci atum 1900 1978 nag lañ ko liggéey ñaar fukkeelu forage bi ak ñaar mooy F ndindi mooy forage bi nekk ndindi ci dëkkub Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Xaadim Rasoul ñaar fukkeelu forage bi nag ak ñett mooy F20 koo xam ci forage su Touba Cheikh Saliou Mbacke ci atum 2014 nag lañ ko liggéey mooy forage bi nekk nag ci Jannatul Maxwa ci diggante jumaay Cheikh Béthio ji ak marché Jannatul Maxwa bi dend ak kër Sëriñ Moussa Ñang ñaar fukkeelu forage bi ak ñeent mooy F21 nekk nag ci Touba Ndigal ci atum 2014 nag lañ ko liggéey ñaar fukkeelu forage bi nag ak juróom mooy F22 di bokkutul mu baraka ci atum nag lañ ko liggéey ñaar fukki forage ak juróom yii nag ñoo am nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba waaye nag am na ñaari forage yoo xam ne nii nag wute nañ nag lool nag nit ñuy doxe nag ak forage yi muy forage bi nekk nag ci université Cheikh Abdou bi forage boobu nag ci 2002 nag lañ ko liggéey mooy forage nag bii génne ndox mu neex mi ak forage nag bi nekk nag ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni forage boobu itim nag waa hôpital bi dong nag wala bi kese lay jox am ndox nag ci ñaar fukki forage ak juróom yooyu nag nguur gi fi newoon nag di état bu Sénégal wala nguur gi fi nekk itam nag di état bu Sénégal am na benn comité nag bu mu taxawaloon ci dëkk bu sell bi nag di tuubaa mu bootu nag ci ministère nag de l'hydraulique ngir nag muy saytu nag mbooleem forage yi forage bu ci paan mu defar la kuréel googu nag ñu ngi ko tudde UMT muy unité maintenance de Touba unité maintenance de Touba boobu muy UMT boobu moom moo saytu forage yi yi ci li ko dale nag ci atum 1948 ba ci atum 2006 ba nga ni sax ñoom itam nag ñu ngi ci dëkk bu sell bii nag di Touba muy UMT bi waaye nag UMT bi nag ginnaaw ci atum 2006 bi Sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke taxawalee nag genn kuréel gum tuddee nag aynu raxmati dañ gën koo xam ci maawu raxmati nag woolu ku ñuy wax Sëriñ Cheikh Alioune Mbacke di doomi doomam dénk ko nag kër guy saytu nag ndoxam Touba kuréel gi nag di UMT dafa topp nag ci ginnaaw nag maawu raxmati ba nga ni nag UMT lépp loo xam ne ni maawu raxmati nag dañ koy liggéey fonctionnaire lañ nag yu nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba UMT bi itim ba nëgën itim nag génneegun seen loxo ci ndoxum Touba mi ndax bépp paan boo xam ne nii soxal na état UMT bii nag moom moo koy gérer muy lu mel ne pomp bu paan forage bu ñu war a dolli ak yeneen paan yi nga xam ne nii nag maawu raxmati paan bi ëpp na ko doole UMT bii nag moom moo koy gérer waaye nag lu dul loolu nag maawu raxmati moom moo res forage yi kuréel googu Sëriñ Touba fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de mai ci atum 2006 ci teewaayu nag sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ak nag kii mu dénk nag wàllu ndox mi di sëriñ Cheikh Alioune Mbacke moom keroog bi ko sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke nag di jébbal ndoxum Touba lu tolloo fukki million nag la ko joxaale ak kër goo xam ni nii nag moom mooy ab siège am kër gi nag moo nekkoon nag ci yoonu jannatul maxwaa wi fi gendarmerie bi newoon ci jannatul maxwaa nekkoon ginnaaw bi nag la sëriñ Cheikh Alioune Mbacke nag seeti nag ay magitim yu mu doyloo jort ni ñoom ñoom itam bu àndeek ñoom itam nag ci liggéey bii li sëriñ Tuubaa Seex Saaliyu Mbàkke soxla nag ci wàllu ndoxum Tuubaa itam nag dana ko am ak kii di sëriñ Mustapha Mbàkke Lakram sëriñ Cheikh Alioune Mbàkke nag dem itam nag ci banque yi nag ngir ubbi ay compte muy banque bi ñu tudde CBAO Ecobank ak SGB kon ñetti banque yi itam nag la njëkk a ubbi nag ay compte nag yu soxal nag ndoxum Tuubaa loolu itam nag tax na nag kuréel gii ñu tudde ay nu raxmati ca jataay boobu itam nag la ko sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacke nag tudde Aynu Rahmati muy kuréel googu nag Serigne Cheikh Alioune jiite ñoom itam nag liggéey nañ liggéey bu am solo nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci wàllum ndox ndax ci at ma ca topp ci mois de mai ba muy ci 2007 ba jënd nañ nag lu tollu juróomi oto ngir mu mën leen a jàppale nag ci ndoxum Touba bi muy juróomi camion citerne ak benn oto buñ tuddee pick ba tey itam nag ci liggéeyu Maawu Rahmati jamono ji nag ñu ci juróom-ñeenti oto liñ tudde ay branchement doo itam nag yokk nañ ko ci dëkk bu sell bii nag di dëkk sell bii nag di Touba lu tolloog ñaari bureau itam nag am nañ ko benn bi nag moo nekk nag ci université Cheikh Abdou Lahad bi benn bi nag moo nekk itam nag ci Daaru Tanzil ci wàllu personnel buy liggéey nag ci Maawu Rahmati ñi ngi toll nag ci 87 muy juróom-ñett fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yoo xam ne nii nag weer wu jot nag lii di Maawu Rahmati nag dana leen fay weer ba tey ci liggéeyu Maawu Rahmati bi ñuy ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ñu leen di jox nag wàllum ndoxum Touba fukki forage ak juróom dong nag lañ fekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba 2010 ak léegi dolliwaat nañ fi nag lu tolloog fukki forage ci ndimbalul état bu Sénégal nag ak nag ci njàppandalu nag Maawu Rahmati ba tax na ci fukki forage yooyu ñu ci dolli am na benn forage bu nekk nag ci université Baylaat bi ci atum 2002 nag lañ ko fi tabax ñu demee nag ba ci atum 2012 ca ñaar fukki fan ya ci mois de décembre nguur gi fi newoon nag di nguuruk Sénégal président bi fi nekkoon di maître Abdoulaye Wade jëndaloon na nag Maawu Rahmati li ñu tudde nag ay machine machine yooyu nag def na forage bi nag mu neex fan mois de décembre atum 2012 ndox mu neex moomu nag ñi ngi ko tàmbalee utiliser woo nag ci forage bi ci mois de mai 2013 ci liggéeyu maawu raxmati nag la bokk forage boobu itim nag koom ba cay jógee ci maawu raxmati nag lay demaat dellu itim nag ci murid yi ngir kat jafe-jafey ndox itim nag mën a tàggalikook ñoom forage boobu nag ñu tudde ndox mu neex tam nekk nag ci université baylaat bi ndox mi muy génne nag dañ koy jaay ay mbàndi ndox nag la ñuy teg nag ci buntu kër yi ku soxla ndox mu neex dem jënd ca mbànd yi nga xam ne nii jot nag mi ngi toll nag ci 2850 mbànd muy ñaari junniy mbànd ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ñoo ñëpp itim nag dañuy dund nag ci maawu raxmati boole koog nag am nañ personnel boo xam ne nii nag ay journalier lañ ndax bépp liggéey bu ñuy liggéey dañuy jël ay personnel ginnaaw nag bu mu nekkee nag kuréelu nag guy saytu ndoxum Touba li di développement bu Touba itim nag maawu raxmati itim nag mi ngi ciy yëngu bari na ay emploi yu mu créé moo xam ci jaay ndox moo xam ci journalier cee gas ay tiwo moo xam nag ci carte barkeelu yi moo ko jiite nag ci le 27 mai ci atum 2006 ba ci mois de janvier 2008 ci mois de janvier 2008 sëriñ Cheikh Alioune jóge woon na nag ci bopp kuréel googu nag di Maawu Rahmati ci ay jafe-jafe nag yu mu amoon ak ñenn nag ñoo xam ne nii nag dañuy dëkk nag ci di ko ŋàññ ci ni mu yore nag ndox mi ginnaaw sëriñ Cheikh Alioune Mbacke nag bu mu jógee nag ci bopp kuréel boobu nag di Aynu Rahmati ci atum 2008 ba 2011 kii di sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Moussa Mbacke ibnu sëriñ Bassirou Mbacke nag moo ko wuutu woon nag ci bopp kër googu moo fa nekk nag ci 2008 ba 2011 Cheikh Alioune Mbacke nag doog a dellusiwaat nag ci bopp kuréel gi ci ndigalul xalifa général bi fi nekk nag bi sëriñ Cheikh Sidine Mokhtar Mbacke ci février 2011 nag bi ko sëriñ Cheikh Sidine Mokhtar Mbacke nag di jébbal nag maawu raxmati wax ju yéemee nag la ko wax ndax mi ngi koy wax ne ndox moomu ñu tudde maawu raxmati nag wala kuréel googu nag di saytu nag ndoxam Touba laa bëgg nag nga yoraat ko nekkaat fa te wée a nag ndigal la la fa sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke joxoon te nga jàppe ko nag ne sëriñ Touba Cheikhul Khadim ngay liggéeyal ñu teewlu kàddu yu ko sëriñ Touba Cheikh Sidine Mokhtar Mbacke Mbacke waxoon ginnaaw ba sëriñ Cheikh Aliou Mbacke jógee nag ci Maawu Rahmati ci mois janvier ba ci février ci février nag bi ko sëriñ bi joxaat nag Maawu Rahmati kàddu yi nag la ko dénk nag ngir joxaat ko Maawu Rahmati ñu teewlu ko. moom it dama ko woon mu Cheikh Aliou ba tax na. sëñ Cheikh Saliou ko defoon tànnoon la. doy loola teg la fi kon dama bëgg noonu la sëñ Saaliwu tegoon foofee mu la tegoon nga doxin fa doxin wu sell wu rafet ba agsi fii tey tegaat la foofee nga yeesal ko ngeen dox doxin wu ngeen daa doxee moom daa ko woon wax ko ko ne na danga ko wax ñu ngi ko bokkal ñëpp moom mi laa fa teg na bureau ba tëddewoon bu njëkk rek nañ ko tëddee noonu rek moom mi mooy njiit li nañ ko tëddewoon bu njëkk rek bureau ba nañ ko doxale noonu rek loolu moo doon woote bi moo doon diggal li itam ba gën bu baax danañ jot kilifa ak taalibe yi ñu def ci seen loxo nañ ko daa defee jëf ci di ci dox di ci wax di ci jëf nañ ñëpp kilifa yeeg taalibe yeeg ñu nekk seen gannaaw ñëpp ñu def ci seen loxo ginnaaw kàddu Serigne Cheikh Sidil Mokhtar yooyu ñu jébbalaatoon Serigne Cheikh Alioune ci la Serigne Cheikh Alioune nag géré waat nag kuréel gi ñu tudde nag Maawu Rahmati waaye nag booba nag kuréel gi nag tudd doon Maawu Rahmati Aynu Rahmati nag la tuddoon ci février 2011 nag ci la ko Serigne Cheikh Alioune Mbacké changé fop tur wi nag jële ko ci Aynu rahmati indi ko nag ci maawu rahmati février ba nëga ni nag kuréel gi nag maawu rahmati nag la tudd ngir xamale leen nag jëmm jooju nag di sëriñ Cheikh Alioune Mbacke moom mooy kan doomu sëriñ Alioune Mbacke la ak ku ñuy wax soxna Faati Lo mi ngi feeñe jamono nag ci dëkku waajuróom bii nag di Daaru Nahim waajuróom sëriñ Alioune Mbacke nag mi ngi ko tudde magam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma itam nag la ko jébbaloon moom sëriñ Cheikh Alioune Mbacke nag bi matee dal alxuraanul karim waajuróom sëriñ Alioune Mbacke ci dëkk bii nag di yóbbu woon fa la jànge nag alxuraanul karim waaye suñu cheikh ali nag mokkaliwu foo nag alxuraanul karim ginnaaw kër moodu binta nag ci suuf si di lugaloo dem na itam nag ci dëkk bi nag di mbaam jigaan mbaam jigaan googu itam nag fa la njàngum alxuraanul karimam fa la bindee itam nag ak kaamilam ginnaaw bu mu bindee kaamil ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan moom sëriñ cheikh Alioune Mbacke jëlewaat nañ ko mbaam jigaan nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii di Touba jox ko nag mu jàngal ko nag lii di xam-xam wala nag mu saytuwaat sëriñ Cheikh Sey imaam yóbbu nañ ko nag ci dëkk bu sell bi nag di Taayif ca kañ ko tudde nag jébbaloon ko ko nag di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu jébbal ko ku ñuy wax Baye sëriñ jiite ci Taayifa Baye sëriñ jiite moom nag moo ko doon jàngal nag lii di xam-xam ginnaaw bu mu nekkee Taayif ci loxoy Baye sëriñ jiite moom sëriñ Cheikh Alioune kii di sëriñ Mbacke Soxna loo di doomu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daana ko tëralal nag ci dëkk boobu nag di Taayif boole koog nag muy jànge nag ci loxoy Baye sëriñ jiite Taayif itim nag fa la duggee nag école français mu boole koog jàng ko yóbbu njaareem ci jëmm ji nag di sëriñ Abdourahim Dem bu njaareem sëriñ Abdourahim Dem itam nag jàngal na ko nag téere bii nag di majaalis boole koog nag mu fay jàng nag lii di ay nasaraan ginnaaw loxoy sëriñ Abdourahim Dem bu njaareem tam jàng fa nag majaalis ci ndigalul nag waajuram sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di turandoom mu boole koog nag école français bi itam nag di jàng ba ci diplôme bi mu njëkk am sax foofu la ko amee muy certificat ginnaaw njaareem ci loxoy sëriñ brevet ginnaaw ndar ci lycée bi ñu tuddee Charles de Gaulle la fa jógee nag ñu yóbbu ko ndakaaru fa amee nag diplôme bi ñu tuddee ci lycée bi ñu tuddee Blaise Diagne ci quatrième année nag ci la amee bac moom Serigne Cheikh Alioune ndax dañ koo soteel benn classe ginnaaw bu mu amee bac nag ci quatrième année am ci lycée boobu nag di Blaise Diagne ci la dem nag ci université Cheikh Anta bu ndakaaru ci département bi ñu tuddee département arabe ci université Cheikh Anta Diop ci première année la fa jógee ñu yóbbu ko nag ci dëkk bii nag di Tunisie mu dem nag ci institut bu philologie ci institut Bourguiba des langues def na fa itam nag ab diir nag jàng fa ginnaaw bi nag la fa jógee itam nag am bourse nag dem nag ci réew mi nag di France ci Paris ci Sorbonne ginnaaw bu mu jàngee Paris ci Sorbonne la fa jógee nag dem nag ci dëkk bii nag di Angleterre wéyal nag am njàngam ci école bi ñu tuddee nag Bradford ginnaaw école boobu ñu tuddee Bradford ci Angleterre nag la tàmbalee dugg nag ci li ñu tuddee nag ab yaxantu di jàng nag boole koog nag di commerce ci pièces détachées nag la Serigne Cheikh Alioune Mbacke nag rakki waajuram di sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoodi la ko xamal ne daal na ñibbisi nag ci daar daar bi ngir mën a delsiwaat nag ci réew mi nag di Sénégal ginnaaw bu sëriñ Cheikh Alioune Mbàkke wéelee ndigalul waajur woow di sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundoodi ba delsiwaat nag ci réew mi nag di Sénégal sëriñ Alioune Mbàkke nag miy waajuram moo ko yóbbu nag ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad ngir boole kook sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke di ko xamal ne nag Cheikh Mbàkke mii nag sama doom la te na ba ñëw xam itam am na ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad nag moo ko booleeg nag ministre nag de Samba Yàlla Jóob nag jamono jooja Samba Yàlla Jóob itam nag amoon na confiance nag ci doomu Serigne Alioune Mbacke bii ko Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke boolee mu jël ko nag jox ko nag ay responsabilité nag yu fort nag ci nguur gi wala nag ci ministère am boobu nag mu géré muy ministère nag de l'hydraulique mu nekk itam nag ab fonctionnaire nag ci nguurug Sénégal yore fa nag programme itam nag hygiène ci wàllu hydraulique nag ci ministère nag de l'hydraulique ci jamono yi nag président de la république bi fi nekkoon nag di Abdou Diouf tey nag ci liggéeyub Serigne Cheikh Alioune Mbacke wala ci jaar jaaru Serigne Cheikh Alioune Mbacke waajuram sëriñ mbàkke màddina nekkoon itam nag magu waajuram di sëriñ Aliou Mbàkke téere bii ñu tudde woon diiwaan bi ginnaaw bu ñu bëggee nag mu tasaaroo nag ci àdduna bi sëñ Cheikh Aliou Mbàkke itam nag lañ joxoon nag ndigal itam nag ngir mu tasaare ko nag ci réew mi nag di Mauritanie ak itam nag ci réew mi nag di Égypte ba tax na itam nag bindaat na ko itam nag tasaare ko itam nag ci kàllaama yooyu sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke dana wax nag lu tolloog nag ñeenti langue muy wolof bi mu nàmp français anglais ak lii nag di arabe xam moom macha allah sëriñ Cheikh Aliou Mbàkke moom am na ko jëm nag ci responsabilité sëriñ Cheikh Alioune Mbacke waajuram sëriñ Alioune Mbacke mi ngi toog nag ñeenteelu xalifa Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ci bëccëgug le 4 avril 1986 génn àdduna nag ci bëccëgug le 8 avril 1998 waaye bi waajuram sëriñ Alioune Mbacke toogee xalifa Daara Xuddoos sëriñ Cheikh Alioune itam nag liggéey na liggéey bu am solo nag ci ron waajuram woon wow lii di màggalug Daarul Xuddoos bi fi xalifa yi jiitu sëriñ Alioune Mbacke nekkee ku masaa di màggal màggal Daarul Xuddoos yow yaa koy màggal ci sa coobarey bopp Alioune Mbacke nag toogee nag lii di xalifa daaru xuddoos ci xarañteg sëriñ Cheikh Alioune Mbacke ci la waxtaanee mbooleem nag ñi mu séqal daaru xuddoos di leen wax ne nag nañ taxawal génn kuréel goo xam ne nii su màggal gi jotatee kenn ku ne daa yëg ne màggal gi ca nga kon loola itam nag ci liggéey yëpp sëriñ Cheikh Alioune nag la bokk nag ci bi waajuram toogee xalifa daaru xuddoos ba tax na itam nag màggalug daarul xuddoos léegi saa bu jotee nag daayira yi taalibe yi sëtti sëriñ Modou Moustapha Mbacke yi ak doom yeeg soppe yi nag kenn ku ne am ci sañ Alioune Mbacke wàllu diine itim nag def na ci lu am solo ndax moom itim nag ku bëgg nag ak jaxasoo la nag ci tariixa yi ba tax na it nag yeneen tariixa yi nag saa xewlee nag da nga gis sëriñ Cheikh Alioune Mbacke dem ca nag wala mu yónnee fa ay ndaw ku bëgg nag ak jaxasoo la na itim nag ci tariixa yi ba tey nag ci liggéeyub sëriñ Cheikh Alioune Mbacke dëkk bii nag mu donne ci waajuram sëriñ Ahmadou Mbacke tundoo di tabax na fa itim nag jumaa wala ma ngi fay tabax jumaa dëkkub waajuram bii nag di daaru nahim tam donne ko nag ci waajuram sëriñ Alioune Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke tabax na fa jàkka ginnaaw jooju nag sëriñ Cheikh Alioune Mbacke nag taxaw te di ci liggéey nag lu am solo mouvement bii nag mu taxawal mu tudd oxy oxy gii nag ab mouvement la boo xam ne itam nag mi ngi yëngutu nag ci wàllu diine ci biir oxy googu nag groupe de presse bi mu taxawal itam nag ci la bootu muy rajo bii nag di Ceeñeer FM ak rajo bii nag di Jant bi FM oxy googu nag ñi ngi ko tënke nag ci O K S I O bi nag mooy organisation K bi mooy xaadimal Moustapha S bi nag mooy solidarité bi mooy islamique ci tënk nag mooy oxy ci boole nag mooy organisation xaadimal Moustapha pour la solidarité islamique ngi yëngutu nag ci wàllu diine nag lu bare bare bare nag ngir boole nag tariixa yi ba tey nag ci réalisation Serigne Cheikh Alioune Mbacké ay këritim nag am na ko ci biir réew mi ñaari waajuram yi ak waajuróom wi nga xam ne nii kat ñoom ñoo bokk soxna Xari Diop ak kii di Cheikh dul Moustapha Mbacké muy Serigne Abdou Salam Mbacké Serigne Alioune Mbacké ak Serigne Ahmadou Mbacké Tundóo ñoom ñett ñiitim na kenn ku ne nag wutal na la nag bis nag bu mu lay fàttaliku ñaari dëkki waajuróom yiitim nag ci ak kilif téefitim nag la ñuy dox muy daaru nahim gi mu doon ne nag ci waajuróom Serigne Alioune Mbacké ak dëkk bi tundoodi nag ji mu doonne nag ci rakk waajuram wa sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi mu nekk itam nag jëmm joo xam ne ni ko nangoo sonn la koo xam ne itam li muy nelaw guddi bariwul li muy noppalu itam nag bariwul kuy xalaat itam nag lu sori la ndax gis-gis